cher jentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yéeni mi des ci tension politique yi nga xamante ni jamono ji ji wax ak yéen dafa mel ni séqul rek homme politique yi waaye intellectuel itam jamono ji ñu ngi defante ki seen biir yéeni bi ne li ko waral lépp nag mooy coow président Ousmane Sonko bi nga xam ne am na ci yenn intellectuel yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew dañoo dajaloo di sàkku ci président Macky a libéré Ousmane Sonko waaye yéeni kaay mu ngi lañu fas yéene defante ñoom ca na mu gën a néexee bi na tukaa Felwine Sarr Boubacar Boris Diop ak seen i ñooñ ñu ngi jàkkaarloog fi mu toll ni pouvoir bi defante gi mel ne bi dem bay làkke sax ne est-ce que Sénégal gii léegi débat public am ñuñ ko jagleel ak ñuñ ko jagleelul est-ce que sax jar na muy am ci Sénégal réew moo xamante ni kenn du fi wax sa xalaat loo fi mën ci wax tam ñu daat koy politiser daal lay tontu lu mel ne xeme Walf Quotidien da en tout cas li ni ne taxul ki fi nekkoon président bu Côte d'Ivoire di Gbagbo waxul xalaatam ci Sénégal gi ak ci diwaanu Niger

yéenekaay bi des waat ne gis nga commissaire bu jëppal El Hadji la wax moom moo jugoon doon yóbbul président Ousmane Sonko lii firndeel ne moom ci boppam génn nañ ko ci fichier électoral bi waaye ba mu demee këram fekk ko fa benn solution moo ci desoon mooy mu jël ko jébbal ko la directeur prison wu Sébikotane El Hadji Ali si jamono ji laa la wax notification ba mu ngi cay loxoom comme mënuñ ko jox Ousmane Sonko jamono ji nga xamante ni mu ngi ca lalu hôpital ya la ñuy xaar moo di mu génn hôpital ca suba suñu daal ko koy jébbal wan ko ne ko xawma kan waaye yow président Ousmane Sonko mënatoo bokk ci élection présidentielle ji di ñëw ndax génnee nañ la ci fichier électoral bi en tout cas li wértóor moo di ba jamono ji ñuy wax ak yéen président Ousmane Sonko gën a dëggal ne Ousmane Sonko jamono ji ñuy wax ak yéen wér-gu-yaramam mu ngay gën a jéggi dayoo te ci alxames ji rek mooy tombeeg mu am ñaar ni lekkul naanul moom président Ousmane Sonko coono ji mu nekkee nii buñ ci dollee radiation bi nga ni nii ko ko ci biir fichier électoral bii day nekkaat beneen pression ci kawam Ousmane Sonko du bokk ci ay élection présidentielle moom beneen coow la timis ne bu nu moytuwul tamit day Karim Meïssa Wade du bokk ci élection présidentielle yi di ñëw yéenekaay bi ne ca dëgg-dëgg li nar a baare na Karim Meïssa Wade mooy double nationalité bi nga xamante ni fi mu toll nii mën na xajamal candidature am nag ci élection yi di ñëw waaye bàyyi ba nag Maître Abdoulaye Wade mujjee naa génn tontu ñi nga xamante ni jàpp nañ ko am ñaari nationalité doo mën a nekk nag candidat ci Sénégal Maître Abdoulaye Wade ne en tout cas Karim Meïssa Wade du wax ne du sénégalais juddu ga mu juddoo nag fële ci diwaanu dëgg fa yàlla lii nag warul nekk gàllankoor di am ba des sax moo di sunu charte réew

xamante jàpp nañ ci ñaari élément GIGN ndekete ñoom ñaari gendarme yi ñoo ngi leen jàppee ci douane Saly yéenekaay bi def ci révélation te ñuy xamal ni mën na la ci benn hôtel la ñu fekk ñaari gendarme yi fekk nañ ci ñoom lu tolloog 3 millions francs yoo xamante ni xaalis bi set wecc la waaye li wértóor moo di fekk ci ñoom ci billet alal gu takku la tollu na ci 100 jamono ji nag ñoom ci loxoy yoon l'observateur moom desuwaat ci candidat officiel ci élection présidentielle yi di ñëw yéenekaay bi dellusiwaat ci parrainage bi nga xamal ni am bi daanu ci douane Rufisque juróomi nit ñàkk nañ ci seen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 disponible partout au Sénégal ak sax bi ci réew bu dee yéen ñi nekk ci Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne ak Barcelone jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro téléphone am di plus 34 602 11 12 28 yéen ñi nekkee ci Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 672 681 289 672 li gën neex nag ci pharmacie Al mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum